au 88 628 02 02 muy suñu numéro mu ngoog kon nag tey on n'a pas de thème on fonce directement kon yaa Oustaz euh, Oustaz Souleymane Ngoogu leeral ci ngoog yaa Oustaz mu yaa ngoog ay tabaarakallaahu Oustaz Souleymane Diop ñu mën a leeral leen bi tabaarakallaahu ñëw fekk suñu ci émission bu mag bi yoon yoon li nga xam ne tabaarakallaahu fii ci leeral TV lay amee muy war a waxtaanee nag ku leeral lépp waaye ci bind ki mën a leeral muy Cheikh Alhaaji Malick mm-hmm. moo tax nag balaa ñuy def direct ci rasoulullahi dañu koy laaj moom Cheikh Al malik moom moom moom moom moom Oustaz Lay Diop diggante Cheikh Al malik ak Rasulullahi toujours ku ñëw rek dinaa la ko laaj balaa ñuy départ. li tax El malik Malick bàyyi boppam. ak li ko yàlla defal. bàyyi lépp. dellu lépp Rasulullahi nangu ne ñoom makkay lépp moo tax nag tabaarakallaahu Oustaz Souleymane jot dañu koy laaj. cofeel gi rasulullahi amoon cofeel gi alaaji malik amoon ci rasulullahi waaye diggante cheikh alhaaji malik ak yontu yàlla muhammad oustaz waaw fa tabarakallahu eh, laaj boobu nga laaj jërëjëf oustaz mhm. samaam cheikh alhaaji malik radiallahu taala anhu mhm. Mawdo boo nee man huwa Cheikh Al Hadj mooy kan moom. Mhm. dama lay wax ni samaam umdatun min umadi diin mm. kenu la ci kenn wi diine moom Maodo mm-hmm. Mm-hmm. umdatun min umadi diin mm-hmm. Sidi Aboubacar ko tudde tur yu bari waaw laaj nañ ko kanay Cheikh Alxaaju Malik mu ni huwa alkahfu lmaniu billaahi turam la Mm-hmm. al alamul faqihu mm-hmm. mooy Cheikh Alxaaji Malick mm-hmm. assanadu rafiu mooy Cheikh Alxaaji Malick aynul kamaali mooy Cheikh Alxaaji Malick mazidul xayri mooy Cheikh Alxaaji Malick tawdi shamuqi mooy sa maam Cheikh Alxaaji Malick jabali rasuqi mooy Cheikh El Hadj Malick. billaahi. Uh-huh. atiyatul aalamiin. Mm-hmm. mooy Cheikh El Hadj Malick. Mm-hmm. gunmul muxtaajiin. Mm-hmm. mooy Cheikh El Hadj Malick. zu laxsati sharia. mooy Cheikh El Hadj Malick. zu talaati saniya. mooy Cheikh El Hadj Malick. zu xulsatil xamida. mooy Cheikh El Hadj Malick. radiyallaahu taala anhu. samaam Cheikh El Hadj Malick mooy man waa kulli zi xaaji. est-ce que. mooy adimil misli. Uh-huh. turam la mm-hmm. mooy mufattishu tariqati mm-hmm. turam la mm-hmm. mooy sayyidil xaaju mooy njool faama mooy alaaji malik uh-huh. mooy jaxaay uh-huh. mooy aas mooy bàyyu sëñ Babacar Si radiallahu taala anhu est saas nga yëg ni euh, euh, da wax léegi waaw ni Cheikh Al Hadj Malick ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais oustaz balaa ngay dugg foofu tuur yii nga tudd hmm. bu ne garaat la bu ci nekk garaat la bu ci nekk garaat la. parce que damay gis ne ni mu koy tuddee. ak ni mu koy rangalee. waaw parce que tamit ñuy ñuy ñuy déglu dañu bëgg xam tur yi lu muy signifié. tur yi bu nekk garaat la. Mhm. dimbali ñu oustaz balaa nga yegg ci diggante Cheikh Al Hadj Malick ak Yonent bi. nga jaaral ñu ci tur yi nag. Mhm. ñu xam dëgg-dëgg El Hadj Malick li mu doon. Mhm. waaye mu bàyyi fi lépp ñëw nekk mi daanu rasulullah. ñu xam keneen Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yëg nga ni. samaam Cheikh Al Hadj Malick kado la woon kado. cadeau cadeau pour Afrique noire. Allahu euh, góor gi sëñ Saybatu Faal moo ko mës a laaj. waaw soxla ko soxla guddi. Mhm. mu xëy ko cuuy tëdd ci buntu kër buntu néegam. Mhm. soxla xaaj maa ni tijji quatre heures dal ci sëñ Saybatu. Mhm. sëñ Saybatu ni bëreet si daaj maa ni ko kii kan la loo fii def mu ni ko mën a Saybatu dama doon la bañ déranger. ndax xaw ma yaa ngi dalloom déet. Mm-hmm. alaaji Maalik ni ko saybatu diggante timis ak gée est ce na fi allahu akbar diggante gée ak fajar allahu akbar est ce que dallu na fi allahu akbar Cheikh Al si tax sëñ Babacar tuddee ko assanadu rafiu ndeke ñii wuti yàlla dañu soxla ku ñu wéeru waaw Seydi Abubakar a wayoon ni mm-hmm. kuy wéeru day seeti gannaawu borom dayo ya waaw yëg nga ni boo wéeroo ci ku amul dayoo mën ngaa daanu waaw mhm. suñ baawa kër nee na sama baay Cheikh Alxaaji Malik mooy sanadu rafia allahu akbar daan na wax ku wéeru ci Cheikh Alxaaji Malik waaw falaaqu ya yaquzu man aqaza bi yeddi Cheikh Alxaaji Malik képp ku jàpp ci loxo Alaaji Malik yàllaa jàpp ci sa loxo mhm. maanaam képp ku ne ci Alaaji Malik rek yàlla téye la ci sa loxo allahu akbar taxawal loolu dañ ko ko seedeel mu wér benn naar ca gànnaar Mouhamad ibnu Abdillahi alxufal alawi jaale si na Cheikh Alxaaji Malick bi Cheikh Alxaaji Malick demee gànnaar ci ali yanqu bi fa lañ xamante jëflante na ak moom ñëw na ginnaawam jëflante na ak sëñ Babacar Si moom lañu ñu laaj kanay Cheikh Alxaaji Malick mu ni aballahu illa anna man amma malikin hmm. yafuuzu bi fawzal xatma yowma taxabuni allahu akbar mu ni xaw ma kanay Cheikh Alhaaji Malick waaye lenn moom xam naa ko. waaw ku jàpp ci loxo Alaaji Malick yàlla rus na ëllëg mu lay inspecté ca kanamu ñëpp. waaw daf lay suturaal rek. Mm-hmm. yàlla moo jomb abalaahu jomb na moom yàlla illa anna man ama malikin képp koo xam ne alaaji malik nekk na giidam jiite ko ah. ëllëg ca pang ma ba ku ci nekk ànd ak sa mbooloo yàlla jomb na loo malaaka kenn am suleymaan mu nekk ci biir mbooloo ma naan inspecté leen ko ngir Cheikh Alhaaji Malik radiallahu taala est-ce nga wax léegi ma ne la tudd na këful man yow waaw boo bëggee ñu aar la ci piyu yàlla bi waaw xam nga wëlli yi li ñuy wër mooy sirru amaani. sirru amaani. Ah. sirru amaani. Cheikh moo ko amee. radiyallaahu moo tax mooy xuru muccuwaay bi. boo duggee ci tataam ji rek mucc nga. parce que parasolam boobu kat. dafay junju. ah. ni tàngoor taxul. dëgg la. Cheikh Al Hadj dem na ba bu siggee xool asamaan. Mhm. jàkkaarloog mbooleem buntuwaayu balluwaayu leer yi. ak mhm. rumuus yeeg ismulaay laxasam yeeg na mu tëddee. Mhm. Cheikh El Hadj Malick rusi yàlla ba yor parasol. allahu akbar. moo tax mooy kër këful maniyahu. waaye sëñ kër ni mooy alamul faqihu. dëgg la ba tey yaa ngi ci tur yi. Ah. xoola ndeke El Hadj Malick bu ñu ko tuddee rek ku ñu xam la. léeg-léeg wëlli yu am dara mais duñ du siiw duñ ko xam. mais kenn mënul miim li yàlla defal Cheikh El Hadj Malick. billaahi. maanaam pour nga taxaw ci réew mi ni Maodo moo raw. waaw loolu jë loolu kenn mënu ko contester. dëgg parce que mooy al alamul faqihu. dëgg la mhm. gaa yi jëm ci yàlla. Mhm. bu ñu àndee ba sañse mhm. ci naa bu fekkoon mu buur lañu. couronne bi ci seen kaw bopp mooy El Hadj Malick. radiyallahu taala mooy taaju diin yi wa izzihi mm-hmm. diine dafa sañ sa nekk jëmm alaaji maa ne nekk kuroon taxaw ca kaw bopp ba moo taaral diine. allahu akbar. wax naa nag ni la mooy mazidul xayri. dëgg la de. yiw la moom Maodo. Mm-hmm. dafa ñu yàlla bëggal rek. Mm-hmm. dëgg la fexe ba wàccee ko ci réew mi. kon moom day suñu Babacar naan mazidul xayri bal naylul mazaaya. bal naylul mazaaya. <laughs> nekk alaaji maa sax. Uh-huh. ami may la ay may la rek. ndollinti yiw la moom Cheikh Al yemu ci waaye aynul kamaali la. jëmmi mat mat yombul de. billaahi billaahi. koo xam ni bàyyi na lekk ndawal. Mm-hmm. bàyyi naanu soow. Mm-hmm. ñu ni ko Maodo lu tax. mu ni mm-hmm. wóoluwuma. gàtt bi wala nag wi. ruur tooli jàmbur lekk ca benn doomu gerte ak jooju la attanut. allahu akbar. subhanallah mais yemu ci mooy mi xàqu qawmihi nit ñi bu ñu jaaxlee. Mhm. même colon bi fi nekkoon daan nañu dem ba ay idée Cheikh Al Hadj Malick ma leen koy jox. Al Hadj Mansour ni wakazan nasara. mufsixuuna mhm. bi madxikum. xëhran mhm. lakum min xaaliqi al insaani. même tubaab yi andi nañu ay tagg yu éloquence ci Cheikh Al Hadj Malick. macha allah dëgg la. témoignage yooyu ñu def. Destiny Malick Sy est un homme exceptionnel une lumière éclatante mhm. une source intraçable mhm. un pédagogue hors classe mhm. une référence sans un symbole de Sénégal la <laughs> ko Paul Marty wax ca Ndar nga xam ni booba daf ko fekki di ko tagg uh-huh. keroog ci kanamu ñoom bàyyi Cerno Seydou Nourou ñu laaj ko mu ni bibliothèque bi Cheikh El Hadji Malick amee li ko yéem mooy fu Maodo jënde téere moom fan lay muy jënde téere fu muy jënde téere parce que dafa dem Cheikh Al Hadj Malick tijjil ko bibliothèque am ci Ndar ci Saint-Louis. te booba benn boto moo fi am. téere jafe na. yaa ngi ko mën a amee ca Caire ca Alexandre. booba luy jëlee téere bilaadul arab ba El Hadj Malick am bibliothèque bu feesee noonu Paul Martini vérifié naa bibliothèque bu si ñuy tudd yëpp Cheikh Al Hadj Malick moo leen ëpp téere. gëstukat la. waaw kon kon yitteem rek mu ngi feeñ foofu. kon mooy zo himmatil aliya. sëñ Babacar ni zo lahzati sharia nag mhm. mooy boroom ngeen gi alaaj maa bu bëggee nga egg ci yàlla nu mu ko neexee rek nu mu ko neexee parce que ñi yar ci yàlla alaaji Malick mooy seen prince la laa ni fekk nit nga jariñoo ko ba muy toppee yomb na waaw waaye fekk nit nga defar ko ba ku gis mat xam ni mat naa topp moo jafe loolu la sax alaaji Malick ku mu topp ku mu pare ci yow nga mat a topp góor gu baax sëñ Muniru Saar moo ne ah nit nee na tooñ li muy garaaw garaaw. Mhm. tooñ ba noppi di yoonal tooñu ko gën a garaaw. déggum. sëñ mu niiru. Mhm. nee na tooñ li muy garaaw garaaw. waaw tooñ ba noppi ni sa tooñ yi yoon la yaa ni ci dëgg. ah yoonal yoonal yoonal tooñ mhm. na sànku li muy bon bon. sànku ba noppi di sànki moo ko gën a bon. dëgg waaye mu ni sànku ba noppi di sànke nag. dafa am. waaw ku sànku ba noppi. muy sànkaate loolu mooy aljahlul murakkab. Mm-hmm. sanaam Cheikh xaaju Maalik yàlla musal na ko ci loolu. fakkam ah. jaahilin. mujjhilin. Ah. xad hëdaa. Ah. moom dafa fekk ku réeroon bay réeralaate. waaw pour nga mën ko dégg. Mm-hmm. mag ñëw na ci moom nekk sëriñ bu mag. Mm-hmm. toog ak Cheikh Alxaaji Maalik di def ay kayfiya di génnee xaalis ci suuf si. di di di di luxus. di def xaalis di def ñeengu. Mm. Mm-hmm. te booba ñëpp koy topp ci réew moom jóge mu bàyyi koo Guinée. Cheikh El am lu mu jàng jël baaram bi samp ci suuf rocci muy ay anneau or 24 carats Cheikh El Hadji Malick ñi ko jàppal mu jàpp mu naan ko xëccal. la góor gi xëcc. di xëcc di xëcc ba ni doy na mu ni tipp Cheikh El Hadji Malick ni ko boo ni wul woon doy na du dog ndax mën nga lii. mu ni ko déedéet mu ni ko na nga ko fi bàyyi te ñu wuti yàlla abdal karimi ah. isa rumtal karamata kun murdil karimi ah. tanal ma sita min zafari inna rida fi rida ya abdu fastamian naw al wasiyati naw al wasiyati fi israi muttakiri جاهل ومجهل قد غدا بين به سارا مرسدا من قد هوى ساراتيف من يا أخي قد غوى بيننا به خلق فيه الغلا ينجب طفل كم جاهل جهيل قد غدا بين به سارا مرسدا من خد هوا سارا est-ce que bëgg Seydi Hadji Malick yaa aqi qad yawam baynana bigi qalbu fihi al-ghaam inta kutuf lini fakam talibi bidwisa ludu ila baynana jana bil maliki kiri sadidi qalifa baynasa ثمان يا أقي قد أيوة به خلق فيه الغرام إن جبت فلني أتاه يا قاظمنا والغنم بين لا في اتباع الهدى قد حقي قد هم بين ديغي قلب فيه الغلا من جب دفلني كمال سرور كمال سرور لو الجلب بين لو العز كل يرعي ليه قلب سراتهما يا أقيل الف عمين به قلب فيه الغرام يلا لك نخمي ام وفاعل فاغلا ما شاء يفعل بين يسعى لما أوليه والصنف بين سراتيه ما يا أقي قد أنا سليم xalq fi gil xaraam ñëpp def leen ni hadi taza diinun bi naylil muna fa yarfa'u kulli wa xalifa saratay fu man ya aqi qad def leen ni bi bi xalq fi def leen ni hadith zadid binayil muna fayarfa'u kulli wa khalifa bayna sara tayfu man ya akhi qad diflini bihi القلب في فيه الغرام إن جب تفلني صلاة صلاة سلام لا من صلاة سرى ليله وسماء قلبا بينه طيفنا باقي قرب به قلب فيه الغرام ينجب طفل سرى ليله وسمع خطر بين سرى ليله وسمع خطر بين سرى ليله وسما تلف بين سرى ليله وسما ينجب دفلني سرى ليله وسما تلف بين سرى ليله وسما تلف بين سرى ليله وسما خطا وبيننا سرى ليله وسما خطا من يكتب لني سرى ليله وسمع قد طلب بين سرى ليله وسمع قد طلب بين سرى ليله وسمع قد طلب بيننا سرى ليله وسمع قد تكون وآل وسهل وآل وسهل جميع كذا بين توابع كل بصديق خلف بين سرى ليلى وهو ثم خلف بين سرى ليلى وسماح تفلتني وآل وآل وصحب جميعك لثمين توابع كل بصديق خلفا بين سراء ليوم وسماح خلفا بيننا سرى ليلة وصباح تبارك ah ni mu ni mu ni non ni mu dugg see sax moo baax. ni nga fëggee. moo baax dafa am ki ñu invité woon keroog. waaw dafa dugg si rek mu ne. Euh, bu fekkee fekk nga classé nañ ba noppi. Mhm. jarul ngay nekk foofu di échauffé duggal rek directement ci match bi. waxu Alassane la waxu Alassane la <laughs> Alassane donc nag ni nga duggee. Mhm. ni nga ni Alassane duggee keroog noonu nga duggee. macha allah ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. di la dalal ak ci ci ci Leral TV. ñu ngi jéggalu bu baax a baax nag. xam nañ ni yow yaa war a jéggalu waaye ñooy jéggalu ndax ñoo la déplacé. te dëkk bi xat na xataay goo xam ne. wallahi xat na xat na torop torop torop ñu ngi tuub bu baax a baax ci loola ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci sa teewaay fii ñu ngi kontaan bu baax a baax waaw xam naa tabaarakallaahu euh, sëñ Saliou fi nga duggee baax na lool mm, mm. yaa ngi fekk Oustaz mu nekk ci point yi am solo tabaarakallaahu waaye comme dugg goo woon ñu bàyyi la nga tabaarakallaahu perax ndol la ci rek ni koy gars yi waxee mm-hmm. léegi nag dañ lay bàyyi nga nuyoo mm-hmm. boo nuyoo rek ñëw ci rek oustaz dooga tabaarakallaahu mën a développé insha allahu taala mm-hmm. bisimilah sëñ Saliou asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di waa Sénégal yëpp di leen ziara. Mhm. di nuyu waa Leral TV. ñu ngi mhm. waaye di jiital ci nuyu bi. Mhm. ay sunu sëriñ. tabarakallahu sëriñ Babacar Sy Mansour. radiyallahu taala. di ko ñaanal yal na yàlla sàmm ko ak i rakam sëriñ Maodo Sy. sëriñ Babacar Sy Abdou. macha allah ak seen taw boobu. Seex Alxaaji Mansuur Si jëmin di sunu sëriñ di sunu lépp di leen nuyu ñoom ñëpp waa kër kër Seex Seex ñu ngi leen di ziar di nuyu tabaarakallaahu xaaji daam ay oustaz di koy ziar baax di ko wàcc wàcc waayam di nuyu rek ay oustaz Souleymane Diop al amin di ko bëggee moom di ko ziar ko wàcc wàcc waayam di jégalu baax tamit tabaarakallaahu ak ñi ma àndal xaaji Mot Sall tabaarakallaahu ak di nuyu macha allah di Pape Thierno xalifa mm-hmm. ñang ñëpp rek tabaaraka ñu ngi leen ziar. Mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. macha allah kon nag ay comme comme li nga nuyu ñu. sëñ Saliou ubbi gannaaw gi sëñ Saliou bi ñu nuyoo ba noppi nuyu léegi nag yaa des nuyu noo ñuy nuyoo tey. ma jul faama. waaw waaw. Sénégal Mam Maodo yaa leeri leeri diine aa njool faal waaw waaw njoxaay lu la tee di xaajoo Maodo baax le bee Sénégal yaa wax wane leen na ci barke baayu Mansoor Si bu saa taxawee ñu xam ko yaraaya diina waaw waaw jaxaa

إذا انجفى لتدي خاتش من مضى بغل من سنغال يا وهلا لردين آتلا تلفات بكى بقرير بورجمنا wana bir fen ci soda manol faam waaw waaw jaxay la di xaccu Maodo baax la me Sénégal yaawa leeri diine awati ya di daw ñunu wuru بجنان نور الدين سليمان بنجول فاما كنا بقي سيدي حاج مالك لولا تيري غاتو مونا باخلمي سنغالي يا وانا لاري ديني Malick nee ba ku may xeeb yi xiib lu néew néew si waaye bu saa lu waay manal waayam mu feeñ fa man yoo la faam nay saan taxaay te di xaacoo Maodo baax la mee Sénégal علي يا ونا لردينا آم مودع مالك نينا بيوكم قبل قبل نيو نيو زين وابوزات خلي لواي من الواي مفين فا من الفا كفي كنا بكسر حد مالك di xaacooy Maodo baax la mais Sénégal yaa wana leeri diine yee Seydi Hadi Malick borom gàññi nañ borom septième gaar waay jaaraama jaaraama jaaraama عن مالك جرما سيد الخادي مالك من ذكر شيخ عالم متورع هذا العنام إلى الهدى بإنان مولى شيخ تقي لا يذن بريبة على استقامة بلا إيمان يوباي عين الشريعة والحقيقة إنه يعدي المريد لحالس العديان جراما جراما جراما جراما سلعة ما جراما صدق نفعا إميوان walaw taqiloo ngeen di ma woo woo ci jaaxaan. ma ñool faam. waaw waaw jaaxaan. lu la tee di xaajoo. Maodo baax la mais Sénégal yaa wana. leeri diine. ah xutbu la xawf la. ke ge ge dirota ma jol va wa wa de kha wala te di ba jo mo do bax le be Senegal ya wan le ridine ya sir adim malik Sëriñ Mawake Si nee na baayam wa bahru ilmika yakfiina sa sa'ilahu yow baay شيانا في غريب بعد سمرة سيد عاد مالك وعندك العلم والمعنى تنسره بين الأئمة وتلاب والأمراء في جنبك سيد حاد مالك مما مودة أسانت مدعته مودة وزرت روضة وي موضة وطفت بيت العلاج حجرة والحجر كروب رمير تجانا خيمة وقديمة إذا دخلت بني سخيلة جمدي وجلفة ليس دخل di xaacoo Maodo baax la mais Sénégal yaa leer diine Maodo Ndiaye. jërëjëf tabaarakallah macha allah macha allah. tabaarakallah fëgg na tëjil leen ko. mu fekk ñi nag tabaarakallah ñu ngi woon ci Cheikh Al Hadj Malick ndax. Mhm. dañoo bëggoon dugg ci diggante Cheikh Al Hadj Malick ak yonent bi. Mhm. waaye oustaz indi tuur yi nga xam ne. Mm. moom lañ ràngal El Hadj Malick. d'accord ndax arab moo ne. Mm. tabaarakallaahu nit bëri bi muy bëri tuur mhm. day teddale ne ku tedd la mhm. kon Cheikh Al Hadji Malick ku tedd la te tuur yi nga korankal rankal mhm. du du xool nit rek naan ko yow lii nga yow lii nga yow lii la dafa nekk loo xam ne lu am la ay nit yàlla seede ko ci moom mu ñëw ci tuur yi nag waaye nag tuur ya xam naa moo tax sëñ Saalum rek moom it ñëw duggaale ci El Hadj Malick. macha allah mais nag mais nag mais nag euh, voilà mais nag foog ñu xam ne heure jàmbur nañ ko lekk tuuti. parce que déjà à cinquante on doit terminer am na ku fi war a dikk. léegi waaw waaye nag ñu xaw ko rek actuellement je pense qu'il nous reste minimum trente minutes ñu jéem a xool nan lañ ko mën a tënkee rek mu mu mu gën a koy. waaw waaw moo tax damaa bëgg Oustaz. dugg nag tabaarakallaahu ci dëgg-dëgg Cheikh Al Hadji Malick ak yontu yàlla Muhammad. Mm. cofeel gim ko ëmbal ba mu tax mu woote li ni mel. waaye kanay rasulullah ki sallallahu alayhi wa sallam defal ñu rek direct. ci mm. diggante Cheikh Al Hadji Malick ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mm. tabaarakallahu jërë ngeen jëf sëriñ Saliou nuyu ko bu baax. xaaji Saliou Diop Jamil. moom Cheikh alxaaji Mansour. Jamil xalif Seydi Boubacar. ah alxaaji Modou Sall ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di ziyaara bu baax ak groupe bi yëpp. maam Thierno. si nuyu leen bu baax. ñaan yàlla yàlla dëgëral. amiin dolli leen wattu. amiin fa tabaarakallaahu ki nga laaj sa maam Cheikh alxaaji Malick. radiyallaahu taala anhu moog yonent bi mooy waxoon mooy ki fi waxoon ni umyul basairi mhm. laa yaraw na bi annani baydul anuuqi tudiu naxwal mashriqi mhm. ndeke daal borom bët yu silmaxa te gisul mhm. umyul basairi laa yaraw na bi annani sumtul buruuqi tudiu naxwal mashriqi na ndeke yoo ko gisul du gis melax yay takk ca mashriq ca rawdu yenent bi mhm. man seen naa ko na akbar nee na nag ku gisul mënu koo gis loolu mhm. maan dafa am proximité digganteem ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi mais bu doy waar mhm. waaw nga daf ni madaxna al mustafa maznan ajiban li yaxfira li gafuur bi yawmi diini billaahi sax alaaj maan ni tagg ba tagg nañ yonent bi tagg gu Mm-hmm. lu tax parce que dafa way yonent bi ci ñetti niveau mm-hmm. waaw way na yonent bi tagg guy dellu ci xelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam martaba rasulillahi parce que yàlla bi mu tollee ci xadratul hahut mm-hmm. nga xam ne xadratul huwiya yonent bi dafa toll woon ci maqaama ruuxu yàlla wàcc ci xadratu haahut dugg ci xadratu laahut yonent bi wàcc ci maqaama ruuxu dugg ci maqaama qalbu yàlla wàcc ci maqaama ci maqaama jabarut yonent bi jóge ci maqaama xalbu ci maqaama aqlu yàlla wàcc ci maqaama jabarut dugg ci maqaama mu malakuut yonent bi bàyyi ko ci aqlu dem ci maqaama nafsu gis nga maqaama nafsu boobu waaw ak maqaama ruuxu ak maqaama aqlu ak maqaama xalbu mhm. bu ci nekk yonent bi da cee tagg ya sidaajman da cee tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aha salli ala al badri waaw salli ala al badri ما أما الحجيج إلى إلى زيارة الروض يا رحمن يا الله boobu mi ngi junj xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam samsu duha mhm. amalat usayri diyaihi mhm. is fataha tamarat li amri imami mhm. mi ngi junj aqluhu sallallahu alayhi wa sallam xelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi aalami almulki wal arwaxu tabiatun li ruuxi wal jismi hada gaayatul karami mi ngi junju nafsu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga Cheikh Alhaaji Malick amul ku mu tollool dëgg la mm-hmm. waaye mu war a tagg ruuxu yonent bi nag mm-hmm. ni wa innahu mm-hmm. is araada llahu nashatana abaana min nuurihi nuurina bil alami loolu ruuxu yonent bi la wa innahu waaw boobu ñu jàng grammaire arab dañu wax ni waawu xaal la waaw am na juróom benni maanaa ci grammaire waawu xaal la alxaalu wa tamyiizu mansuubaani ala ixtilaafi lwadai wal mabaani xaal mooy complément circonstanciel de manière mu ngi wa innahu innahu ji damir ji di damiru sha'ni hmm. ñaari yoon la ñëw ci xilaas wa innahu is arada allahu nasatana abana min nuuri nuur nabil alami ak wa innahu nazala al ayuba xaamil raxil mustafa hmm. hmm. war a tagg waaw mbir mu rëy mu ni na mbir ma mbiree waaw ba mbir ma amee la ca am mu ni wa innahu mu damiru sha'ni mbiral mbir ma allahu akbar أبانا موضوع أبانا موضوع أبانا من نوره نورا بالعالم أتانا أبانا موضوع أبانا موضوع أبانا من نوره أنا صبي وإنه إذا أراد الله نسأتنا أبانا أبانا أبانا من نوره نور النبي العالمين وإنه إذا أراد الله نسأتنا أبانا موضوع أبانا موضوع أبان من نوره نورا أن صبي من أبان من نوره نورا نبي العالمين أبان من نوره نورا نبي العالمين أبان من نوره يا نبي العالمين أبان من نوره نورا نبي العالمين sallallahu alayhi wa sallam i'lam annahu lamma taqa irada llahi taala bi ijadi xalqihi abraza alxaqiqata almuhammadia summan bajazat minha ala awalima kullaha ulwaha wa suflaha inna allaha taala xalaqa muhammad fa jaala lahu suratun rawhaniya ka hayatihi min addunia fa jaala rasuhu min albaraka la ñu bindee bopp yonent bi wa aynayhi min alxaya kersa la ñu bindee bëtu yonent bi wa uzunayhi min alibra Mm-hmm. waaru ak discipline la ñu binde nopp yonent bi walisaanuhu min adh-dhikri tudd yàlla lañu ñu binde làmmiñu yonent bi wa safatayhi mm-hmm. min at-tasbihi sabbaal la ñu binde tudd yonent bi wa riquhu min asalil janna yéeguloo ni euh, teflitam yonent yàlla muhammad ya ci lemi aljanna lañ ko bind wa saaruhu min nabatil janna suuba bi nekkoon ci bopp bi kaawaram moom Moustapha yéeg ngeen ni gàncax yi ci aljanna ñu parfumé ko ci anbar ak gët bu misk lañu ñu bindee kawaram nga alaa tara annahu tefile fi biiri ruuma fi madina wa kaana maa'uha si'aqan fa saara azban wa lamma akmalahu bi hada sifaati arsalahu ila hazihi umma fa qaala hadiyati ilaykum moo tax Cheikh Tidiane bi muy saraa kayfa tarqaa daf ni fa mahma balagha almaadixuun wa taxaala alwaasifuun fa hum inda kamaalihi qaasiruun alaa Muhammad wa innahu laa yanfiri wa innahu wa innahu waaw lii mbir tey mbir tomb leer rek moo fi nekkoon bi yàlla nekkee rek di yàlla ci matam gi mhm. waaw ak càppaa culim gi mhm. ak wi ñàkk wéet mhm. wéet dafa jomb ci yàlla manqué dafa jomb ci yàlla leeri yàlla yi di jaamu yàlla yàlla yàlla meloom di ko jaam moom ci boppam di sant boppam yàlla di sant boppam ba yàgg mu bëgg a feeñal dara waaw parce yàlla xam na boppam mais war na am ku ko xam jox ko cëram. Mhm. dëgg dëgg. Mhm. la yàlla jël benn tomb leer. Mhm. génnee ko ci leeram sos ko muy mu muhammadiya. xaqiqa boobu. lañ laaj sëñ kër mu ni lawlal xisaawatu. maalat anfusun nafarat. ilayhi tabdila garsil xibbi bagdaau. sëñ Babacar ne oh c'est dommage. Mm-hmm. ñu ni ko lu tax mu ni ndeke yoo xol yi yàlla moo koy muur bu ko soobee mm-hmm. waaye mu ni ay burlu woon ak malaanu kiiraay bi muur xol kon yeneen bi doo am ennemi ndax dañuy comprendre ni affaire bi demee rek ñëpp bëgg ko ñëpp gëm yonent bi di dund sayyidul wujudi mais malheureusement am na xol yu ñu muur mm-hmm. fa aghshaynahum fa hum laa yubsiruun sëñ Babacar ni oh, law lal ghishawatu ay bu lu woon muuraay ga ah. <laughs> parce que moom teg na bëtam ci xaqiqatul muhammadiya sëñ kër fu Cheikh Tidiane di yóbbu njabootam yóbbu na ko fa sëñ kër lu Cheikh di defal xalifaam defal na ko ko maa bi mu koy junj nag mu ni in kaana jihdun mhm. wa nakdun fi zamani mhm. mhm. bada jawdun wa tawdun lahu falkafu wak faa u ñu laaj sëñ Babacar réception bi yàlla invité yonent bi asamaan nu mu ko dundee mu ni yàlla remercier na yonent bi mu kalliman bi jadiril hamdi baari ana mazaaxa baa un wa saadun baadaha ra u loolu mooy masaaxal basar wa mataxa la ilaha illallah sëñ Babacar di junj xaqiqatul muhammadiya maa ngi bëgg fii rek ba innahu rek laa yem tey xaqiqa boobu am na yeneen nitu yàlla yu ko xooloon waaw wax ci ay wax imaamul junaydi wax na ci abu yazid al bastaami wax na ci nee na xuus naa géej yàlla yi xuus naa géej réalité dëgg-dëgg yi bañ ubbil ma kiiraay ma laajte sama diggante xaqiqatul muhammadiya nu mu mel mu ni fa isa bayni wa a sabina alfi wara xijabin law tajawastu ahadan minha laxtariqu kama taxtariqu shaaratu isa ulqiyat fi naar billahi abu yazid nee na dem naa ba dog pays yi ngi àgg pour dem ci yàlla ma dem ba yëg ni nekk naa sama borom sama borom jeex takk ci moom ma laajte nu ma def ak xaqiqatul muhammadiya ñu ni ma Abu Yazid nag defal très attention mm-hmm. sa diggante xaqiqatul muhammadiya soixante-dix mille kiiraayu leer dox na ci yoo xam ni benn boo ci traversé ni mees di lakkee ci safara ngay lakkee ci leer allahu akbar mm-hmm. allahu akbar ñu laaj Cheikh Tidiane nan nga def ak xaqiqatul muhammadiya mm-hmm. Cheikh Tidiane ne nag xuus naa xaqiqatul muhammadiya ba jot un dixième bi un dixième mu xaqiqatul muhammadiya Mawlaana Cheikh xuus na ko nee na ma laajte ndax fii góor mës na fee egsi mhm. ñu ni ma am na waaye bariwut mhm. Cheikh nee na man lu ñëpp di am bëgguma ko dama bëgg am lu kenn amut la ilaha illallah hal wasala huna ahadun min al awliyayi fii ma taxaw man ahmad tijaani ndax góor mës na fay taxaw mhm. ñu ni ko am wa ama cheykhaani faqad balaga wasat al maqaami am na ñaari nitu yàlla yu ko dépassé kan la imaamul Junaydi ak mhm. ibnu arabi al xaatimi Cheikh mhm. Tidiane traversé waat xaqiqa bi mhm. yem dem ba ci milieu xaqiqatul muhammadi ba ci digg bi ni ndax fii ma agsi góor mës na fay agsi mu ni wa amma shaytaani faqad balaga wasata al maqaami fi nga taxaw nag ñaari wëli yu mës nañ fay taxaw Cheikh Tidiane continué waaye biñ fi accès ñoom fii rek lañ mën a yem fa fa lam yem diyaa fa galabahum al anwaaru mënuñoo continuer leer yi moo leen dominer ñu wàññi ko Cheikh Tidiane di xus xaqiqatul muhammadiya ba ñu bind turam ci biir xaqiqatul muhammadiya wa amma cheikhu Tidiane faxat mada ila an tatalasaqa baxru sirrihi bi baxri sirri nabiyillahi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam xaqiqa boobu dañ ko laaj ibnul farid mu ni falaw laaki yabxa alxaqu xaqan wa ma duri waaw walaw laaki yabqa daiman an muwaasili e yow xaqiqatul muhammadiya mhm. ndeke bu dul woon ak yow bu yàlla bindul woon tomb leeru yonente bii d'origine am Mm-hmm. yàlla dafay des nekk dëgg tudd xàqu mm-hmm. mais kenn du ko xam mm-hmm. wama duri falaw laa kii boo gisee mu jigéenal ko xaqiqatul muhammadiya bi lay junjut bu du woon ak yow xaqiqa bi yabqaa daa iman an muwaasili yàlla dina sax de dina nekk dëgg-dëgg li mu doon mais kenn du egg ci ñu ni alxaj Mansour looy wax ci xaqiqatul muhammadiya mu ne yaa qabdata nuurul lati mm-hmm. taka waneen xablan nasam gis nga alaaji Malick mm-hmm. doom yi rek ëpp nañ ci réew mi la ilaha illallah cheikhul qawmi mm-hmm. mufattishu tariqati bàyyu xalifa bi si nga Babacar Si Mansour waaw Cheikh alxaaji Mansour moo ne yaa qabdata nuural lati ndeke moom dem na ba def alfana bi zaatil muhammadiya moom wayatul jëmmi Mouhamad Abdoulaye bi doon daagu ci Makka mais booba réer na ci leer yi mi ngi tagg tombu leer bi la ilaha illallah. Aliou Moussa eh yow tomb leer bi yàlla ngëboon. waaw eh yow mi nga xam ni yaa njëkk sosu. Mm-hmm. yaa njëkk a composé wu boobu dara amul. Mm-hmm. yow mi nga xam ni ndox mu wéetoon di jaamu yàlla. Mm-hmm. yaa njëkk sosu. parce que ndox a njëkk a jaamu yàlla. moo tax boo gisee ñu bind ñu ci ndox ak ban loolu beneen secret loolu nekkul suñu Maodo tey. Uh-huh. ak sew sew bi tax ñu bind iblis ci safara. mais maa ngi bëggoon fii. wa innahu waaw wa innahu mhm. nekkal ci nekk ñëw ñu ci. xam nga lu tax mais amaana min nuurihi Maurice. neex lool nga tënkal ma. ndax waxtu gi xoj na ma lool waaw xam naa fu mu yem ñu yem fa. mais góor gi la kenn mënta tënk wax. ay ci kon <laughs> abaana. Mhm. abaana. min nuurihi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu moo tax benn waay bu ko doon contesté. Mhm. ni ah. alaaji maali nee na yàlla ci leeram la sàkk bindu yonent bi mhm. te yàlla wàññeeku daa jomb ci moom mhm. te dara boo ca jëlee dara mhm. mu wàññi ko ma ko sëñ Babacar tontu na leen bu yàgg guddi gëm ko njëkkee dégg gàmm Tiwaawan 49. keroog sëñ Babacar 22h la génn di tontu di layal yan leer la alaaji wax moom la yàlla bindee yonent bi ndax dafa am leer yu nangu transmettre ci leeru yàlla ak leer yu ko nanguwul dafa am al anwaarul izzati yooyu duñ ñu transmettre yàlla du ci bind dara. nanguwul infisaal laa yaqbalul infisaal. yàlla bi muy bind leer yonent yi sëñ baa ko ne nuuru nabii habibillahi safwatihi min yi rabbi bila rabi wala tahami am na ñuy weddi mag ñi ci tari ci réew mi di weddi loolu Cheikh El tontu na leen bu yàgg mën nga leen tontu ci ñaar benn bi tontu àtte xel la mooy boo yoree sondeel muy tàkk waaw nga indi beneen sondeel bëgg koo taal boo jafalee ci biir sondeel bi. Mhm. leer gi du wàññi dëgg la de. lu boobaa te xel la. mais àtte texte bi. mooy bala ngaa attaqué alaaji Malick kii wa innahu is arada allahu sama sëriñ sëriñ Ousmane ñoom mën nañu koo passage yàlla na wéram nee na na yàlla ci bi muy bind aadama ni wa nafaxtu fii min ruuxi mm. fa aqulahu sajidin maa wal aadama sama ruux bu dee yàlla wal na aadama ruuxam te wàññikuwul te kenn attaqué wul yàlla bu ñu attaqué Maodo ci wa innahu is arada allahu sana abana min nurihi <laughs> macha allah mm-hmm. macha allah yow samaam ni mm-hmm. moo tax fa innaki jamoon gis nga leer googu Eh, benn nit yàlla dafay xool yonent bi mu ni ko ah, dafa mel ni dang dang ñu bëgg a nax hmm. parce que da bëgg ñëwaat ci suñu biir jaare ci ndey ak baay waaw di dox ci mbeddi màkka di lekk ci seeni gëléem yi te yow yaa nekkoon symbole lépp démb fa inna ki jam'un xaysu hmm. xaysu anti su unuhu nga inconnu hmm. mais waxat jikti fardan tey nga ñëw nekk benn jëmm di dox ci nag màkka duna shaklin mumaasili mais yemoo kenn dëgg la ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam fahasibtu umraka wal jalalatu jaani lutful ilahi wa anta siru latifi ahya muhammad tairu muhammad batinu muhammad law sada man yati kama sada man mada ñol ma kayalen gëm bihi bi xusnihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci émission bi bëgg melal yonent bi eh, waliyu bi nee na nitu yàlla bi nee na yéen ñi bëgg a résumé yonent bi ci seen plateau yi wala ngeen bëgg koo résumé ci seen gàmm yi ci seen événement yi eh, yaf na zamanu jamono mooy jeex mais fi wa fihi maanaam yuusafi dina am lu kenn dul wax ci yonent bi baa duna tukki yamate ma daana baxru ki min kudurin rasulu sunna bi ci Tiwaawan bàyyi Sidi Babacar Sy Mansour bàyyi Sidi Mouhamad El Habib ak Asiyatu moo joxoon ñun ci yàlla Mouhamad ni ko yee nabi bu fekkee ndox mu naqari mee tax gaa yi réeré la yow yaay ndox mu neex bi eau minérale bu sedd bi yow la ma teema daana yow addina mbaxaru komer ko dóoleen addina bu dee sa géej gi dafa nëx te salte yi nga yëg ni ñun am nañ géej gu teey te sell fasaafin salsalul bahrul amin yàlla Mamadu fasaafin am ndox mu sedd guyu mu bandamtal neexa boo xam ni dafa sedd am cep bu sedd guyu kan la mu ni rasulullah yi nabiyun prophète yonent la ab xariyun nabi zini la garmi pire mooy rasulullahi aryaxiyun aryaxiyun ku tabe te yaatu jikko la moom yonent bi shafiyullahi du xulqil bayoon ki taxawoon ni ana xaasim may séddale ëllëg mooy cell teg yàlla mooy borom jikko yu leer yi maniinun yawma ahmad sa turandoo maniinun ku dëgër la ku am résistance la ku am kaddu ku am personnalité la kañ yow ma zoïs min maninun zoïs min maninun bis bu defkati bàkkaar yi di tiit xaj ceerno buñ ci tolloo na nga yëg ni rasulullaay moom keroog bu ñëwee day sol mantoleer rek rab manonon xayra siojbil manuni ndax yëg nga ni ndax yëg nga ni chaque seconde dañuy solal rasulullaay cent vingt quatre mille gilet leer wa miftaaxu mais gilet bi muy mujj sol rammuñu mooy liwaawul Mahmoud jaaga madina wax naa la seconde bu nekk dinañ solal na bi cent vingt quatre mille zile leer heure bu ñuy julli ci yàlla Muhammad yàllaa ngi ràng Mustafa ay anwaar ay leer waaye mbub mi muy mujj sol ñu mooy maqaamul mahmud waliyaayil maqud wa safaatil uzma bi yadihi yowmil mawud yàlam annahu lama tax iraad li taala bi ijaadi xalqihi moom yenti yàlla Muhammad ci yàlla Mamadu wa mifaaxun Saalim ndax yëg nga ni ëllëg bu yonent bi taxawee buntu àjjana dafay fekk ku ñuy wax Ridwaan nabi ni ko na nga def salaamu aleyka yaa Ridwaan alma caabi ji Ridwaan ni ko ah kooku di fëgg kan la fii dañ ma fay teg te kilifaa ma fi teg kenn mësuma fëgg yow la kan mu ni ko maanaam Muhammad fa yaqulu alxaazinu man anta fa taqula Muhammad xa Ridwaan ni bëreet jóg ni ko yow rek lañ ñi ma woon yaaye yow caabi ji wa misbaaxun fa astaftihu fa yaqulu alxaazinu man anta fa taqula muhammad. yee wa miftaaxun wa misbaaxun fa yaqulu bi ka umirtu an la aftaha li ahadin qablaka yéeguloo ni clé minute bi tëgg caabi àjjana ci forme Muhammad Rasulullahi la ko liggéey wa misbahun munirun nabee naan kàccit ubbi dugg teg tànk loo ni Moustapha nag day tump moom buy dox ndànk lay dox di tump ci tapis rouge àjjana xool secteurs yi xool parcelles yi xool ri résidence yi na bi foofu ci nekk mu dugg xool barkeelu génn Ibrahima pointel ma foofu problème bi du fii tey dem buntu safara ci càmmoñi yàlla nabi taxaw buntu safara ni bëgguma kenn koo xam célébrer sama gàmmu di fi jaar di lakk bëgguma ko mës a julli ci man lakk Baye Hadj Malick nee na bu keroogee ñi ma yaakaar rasulillahi dina ma tappal garaat gaay borom gaaya ak tiwaawan borom zawiye bu rafet bi borom ñetti zawiye yi góor gi ci ndar waalo waalo bi nee bu ma rasulillahi takkalee garaat nag keroog bu ma daagoo keroog ngeen di xam man kanay Malick keroog na buñ ca yeggee wajaal xilaadata jiidi fi asaabii man alayhi anzalta ayatin karimati يا لما صار من ياتي كما صار من مدى نجول ما كيالين جن موني يقولوا لك ربو ينتبه دي رمو dañuy njëkke yeneen an prophètes yi dañuy seetu yonent yàlla aadama mu ni nafsi am naa kaa nag dëgg-dëgg boo xam ni mënuma ko boole ak seen bos mm-hmm. ñu ni ibrahima la yàlla njëkk a wax waskur fi kitaabi ibrahima nañu ko seeti ñu seeti ibrahima ndeke du sotti ñu ne am na doom ju baax ju ñuy wax ismaila yàlla tagg na ko waskur fi kitaabi ismaila innahu kaana sadiqal waadi ñëw ni ko yee ismail tey tàngoor wi metti na taxawaay bi taxawaayu cinquante mille ans la fi yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sanatin keroog safara si dina tàng yàlla wàccee jant bi ba nit ñi naan yàlla kon tee nga ñoo yóbbu safara benn yoon buñ fa tolloo prophète bu nekk dañuy dem ci yow nga ni noo am na kaab bu gën a critique seen bos baal leen ma ba yàgg bu ñu agsee ci yàlla Isa mu ne ah am na ko ma sama xel daj de borom euh, pavillon leer bu rafet bële doomi amina jëlee na ngeen ko seeti bu ci mënul dara du sotti keroog bu ñu jubee Moustapha sa turno day jóg taxaw Uh-huh. ana laha uh-huh. ana laha uh-huh. ciru rammu tey man rek maa ko moom yawma yafirru asirun min asirati wa ummi wa abi summa zawjati ma lil wasilatu fi dunya wa akhirati siwa alladi saada man yabi wa man yati la khasara man yati yonent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam waaye nag tënk nañ ma lool maa ngi tuub bu baax baarakallaahu maa ngi tuub bu baax a baax wallaahi alazim. noonu la noonu la waaye nag ngeen xam ne comme que télé la. dëgg la walaay ni mel la. walaay waaw ndax dëgg fa yàlla ñu ngi am sax lu ñu am sax ñu ngi koy jaajëfal waa régie bu baax. dëgg la walaay walaay jàppandal ci biir boobu yëpp. waaye lan lan nga may tàggatoo le temps que may may jox kii mu tàggatoo. yaa yaa yaa sunu lépp. Mustafa Jamilo umu xayre këjër bilaay. sang baa nga faas. te ma waxi leen lanu moo xewoon bilaay. sang baa Mustafa bilaay bay soora sang la bay ke tudde Mustafa bilaay sang banga kurusu mammaw dulu jemilti bilaay sang banga lokku ci baara ba mu dëgër lool bilaay loxo ca kaw Maodo tëye Mustafa jemilti bilaay loxo ca kaw Maodo tëye bay soora tëye bilaay sang nga baanga cara maama Malick Sall naan bilaay sang baanga faa